commissariat yi léeg-léeg nga bi sax tere ko yaa ngi taxaw ci mbedd mi saw jom kon pare ko ku dem yóbbaale sa jikko li aram mooy ñàkk yara jikko tilim jikko fu waay jot tuur mbalit saw wala raxas oto yi la ñaawteef la nguur gi bëgg a dakkal ci réewum Sénégal waxal ñu dëgmal ab loi jëmale ko ci ba tax na àllarba ji ñu daal di doxantu yenn ci mbedd ndakaaru yi ngir saytu lu ni mel. non loi bi yëgu ma ko damaa ko doog a yëg si yow quoi. loi bi ngeen teg fii nii euh, fii laa ko yëgee. loi bi tey laa ko yëg. waaw euh, dëgg naa ko tey suba ba may xëy si presse bi. naam ñu bëri yëguñu woon xibaar bi waaye bañ ca jotee mu nekk lu ñu rafetlu lool. loi boobu lu lu lu lu lo baax la si nit ñëpp quoi ndax set moom fépp lañ ko tàmmoo si lépp si lépp ndax ndax moom lépp dafa war set si yoon lépp dafa war a set si yoon lépp tegu si normal waaw ay ay saw si mbedd meeg ay tuur ndox si mbedd mi yooyu dafa war a dakk quoi. kilifa magum jëmm war nga am rusukaay sax ñëw taxaw si mbedd di saw. Ah, am na ñoo xam ñàkk pexe nag wala tollu diggante moo tax ñu def loolu noonu. du yoon d'accord mais am amuñu fu ñu ko def dëkk bi saturé ba nga xamante nit fu ñuy mbay rek fu ñuy ndox ak fu ñuy sax amu fi.

ay ñu sànni ay ay mbalit arrêté dëkk bi na di fexee def ay kes kes yi maa ko def pour ku bëgg a tuur ndox na nga dugg fii nii kes yi maa ko def pour ku bu am sa mbalit na ko tuur fii nii mais mënoo yor benn kaas rek sa loxo wala benn mbuus rek 30 minutes sa loxo wala 35 minutes loolu mënul nekk quoi. képp koo xamante dafa tuur mbalit euh, ci mberi moo ko tey. ndax amna na quoi deug rek ne yaa. sanction yi nga xamantene ni nguur gi prévoir nako ci bile loi ngir tek ko ci ñi nga xamni ñoy amal yi yile jëfine ndaw yoyé ñu tassel ci Sandaga ñu ngi xamal ni ñom and nañu ci gouvernement bi mo war japp nit ñi yar leen yar leen ci lolu quoi manam tay jii ku ku wacc yoon ñu teg la si yoon lolu moy loi léegi dekk bi set mom bu sobe yàlla. bu fekkane dañu dañu fi def ay 12 public yo xamne ne ci kaw télé bi bo taxé tour ndox nga tour ndox bu baba nak buñ la gisé du ci djégé touro fa ndox nga tour ñu benn buñ la amande 20000 sax d'accord na ci. Sénégal bu ko la posam dé tay so touré ndox ci mbedd ñu japp la nga fay 2000 wala 1500 rek hein ëlëk ci biir bo bëggé tour ni xalat 2000 la non ya nga wax motax buñ su téye kenn hein mu laaj ko lool nonu la prochaine fois do ko def. bu doon sama sago ñu bàyyi li ñuy def and ak gouvernement liggéey. ñu bokk liggéey suñu dëkk set raxaskatu oto yi ñoom bi ñu leen dékkee suñu mikro ngir taataan seeni kàddu kenn ci ñoom nanguwul àddu jëmale ci loi bu bees bi ñuy waajal. kàddu yi benn la bile loi bés buñ ko appliqué ci njorteel dina metti waaye bu wéyee ab coppite bu rëy lañuy daldi daal nemmeeku ci ndakaaru ak li ko wër. set